asalaamaaleykum mbokk yi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan man la Fama Mbengue responsable jeunesse pure bu Thiès département de Thiès tey ñu ngi fi organiser benn activité bu nga xamante ni quatre fédération ñoo ko ñoo ko ñoo ko sekk suñu waxee fédération nag ñun si suñu organisation partie département bu nekk fédération la ñu ngi jël fédération de Tivaouane de Diourbel de Mbour ak bu Thiès ñoo fi daje tey pour former seeni jeunes ñu mën a dem ci élection yi xam nañ ni politique gu naxaat dafa xew politique gu xumbal mumbaay dafa xewi tey li xew mooy nga former say jeunes def programme ba nga xamante ni fu ñu génn ku ñu waxal mën nañ la convaincre parce que ci débat di lañ toll le pays a beaucoup plus d'intellectuels aujourd'hui donc il faut que ñu changé système bi nga xamante ni moom la ñuy doxee tey fi ñu toll mooy nit ñëw wax la xam-xam nga nangul ko xam-xamam nga nangul ko ànd ak moom. yaakaar naa ci doxin boobu la ñu nekk tey moo tax ñu woote journée bi pour former képp ku nga xamante ni jeunesse la jeune la bu bokk ci biir pure ba suba incha allah ci début campagne bi képp ku ñu wax ak rek nga xam ne ñii xam-xam lañ lay wax ba lépp lu ñu la woo nga mën ñu cee fekk si jàppale ñu ñu mën a gagné les élections du 25 février allah. laa la wax ci xam-xam ci programme bu nga xamante ni touché na lépp lu nga xamante ni problème mu sénégalais la. comme ni ñu ko gisee dinañ ñëw ci programme bi après lépp li nga xamante ni sénégalais yi soxla nañ ko mu ngi ci programme bi te bis bu ñu wàccee sur le terrain waxtaan ak ñoom wax leen li ñu nar ci Sénégal incha allah dinañ ñu voteel te dinañ day dellu ci cadre liggéey parti yi fi nekk Sénégal yëpp benn parti nga gis muy le PUR moo fiy def congrès chaque année chaque année dañuy def chaque cinq ans du moins dañuy def congrès changé suñuy euh, institu institution su ko defee nga xamante ni mouvement bépp mouvement bu nekk ci biir parti bi day am opportunité dajale ay jeune am ñu falal ko kan mu nga xamante ni moo koy jiite bu ko defee kooku il est légitime que à chaque fois bu soxlaa jeunes yooyu da leen di mën a am parce que ñoom ñoo toogoon fal ko. aleykum ñu ngi nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp di rafetlu vraiment li nga xam ne nii moom moo xew tey cees man maa ngi tudd Papa Limamou Khoule nekk responsable jeunesse biir département bu Tivaouane tey nag ñu ñëw ànd ak toute la jeunesse ñëw cees pour wan waa cees ni leen le candidat Aline du Dia ci raison bii la dëkk te li ñu fas yéene mooy jeunesse bi engagé wu topp ci ginnaawam ba yóbbu ko pale incha allah commencé nañ ko avec les parrainages vous le voyez ñoo dugg ci terrain bi wax ak nit ñi convaincre leen ba ñu jox ñu seen parrainage ñu da am suñu parrainage jàll ko buñ jugee ci loolu aussi dañu fas yéenee ànd ak jeunesse moo tax tey ñu lëlu ak ñoom wan leen xamal leen ni leen am na fu ñu jëm te foo fu ñu jëm dañu war a summeeku jaayante ko waaye tamit wax sénégalais yi ni leen pays dëkk réew mi ci boppam actuellement dafa soxla dafa soxla PUR waaye dafa soxla Aline Mamadou Dia pour mu jooyanti ko Et je pense qu'il est temps, qu'il vraiment temps que le Sénégalais devient une priorité au Sénégal. Donc, idée boobu moom la ñu dajale jeunesse bi pour que tey ñu ñëw ñu wax leen naka la ak nan la pour que defee ñu mën a gagner élection yi ci région de de de de Thiès mais aussi ci Sénégal gépp pour mën a yóbbu Aline Mamadou Dia. parti PUR dafa miser ci ndaw ñi parce que xam nga euh, dañuy wax ni dis-moi quelle jeunesse tu as et te dirai quelle quel peuple tu tu seras te dañu yëg ni jamono bii ñu toll ndaw ñi dañu yëg ni li fi xawoon ay jamono ñu di leen utiliser di leen nax di leen jox tiset di leen jox kap di leen dugal ci ay kaar ndaw ñooñu léegi ñoom ñoo toog ci banc yi ñoom ñoo jàng ñoom ñoo conscient ci ni ñoom ñoo war a jël seen responsabilité ci réew mi moo tax pur nga gis ay jeunes am dañu taxaw taxaw parce que bu ñu taxawee suñuy morom la ñuy fekk ci terrain bi te bu ñu waxee ñoom ñu dégg leen suñuy yaay la ñu amal affaire te ñun ñooy dem ñooy sumeeku ji pour ñëw jox leen te bu ñu leen waxee ñu dégg suñuy baay la ñu séqal te bu ñu leen waxee ñu dégg parce que xam nañ ni ñun fan leen di jëmee ak lañ leen di wax loolu mooy njëriñu réew mi moo tax nga gis pur musée wu lu ëpp ci base am muy la jeunesse. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi euh, tudd Mouhamadou Ndour. nekk responsable du mouvement des jeunes au niveau du euh, de la fédération départementale de Mbour. ni ñuy doxalee daanaka comme ni département yëpp di doxalee ci wàllu parti bi ñun ñoo xam nañ ne suñuy liggéey dafay nekk un travail harmonisé mais ñun au niveau du département de Mbour euh, on est conscient des changes parce que xam nañ ne Aliou Mondou Dia il du département de Mbour. te bu ëllëgee dinañ natt résultats yi nga xam ne am na ko au niveau de Mbour mais ñu nag dañu yàgg jóg parce que élection boo koy waajal. Euh, doo xaar ba euh, deux mois nga koy soog a waajal yàgg nañ commencé di liggéey di def ay euh, visite di dem ci luuma yi su ngeen laajte au niveau de Mbour def nañ ay visite au niveau du du marché hebdomadaire de Sandiara def nañ ko à Sessène booba sax tànn guñu Aly Mamadou Dia comme candidat kon yàgg nañu anticiper te lii la ñu doon waajal te suñu secrétaire général euh, fédéral ngay nga xam ne moom mooy Idrissa Mbengue ñu koy félicité ñu nommé ko directeur adjoint mooy directeur de campagne adjoint bu Aliou Mamadou ja dafa am lu mu yàgg di wax nee ne chacun gagne chez soi et pur gagne partout loolu nag commune yi dañ ko jël def ko seen slogan commune boo gis ci euh, au niveau du département de Mbour mu ngi doon def activité am muy action citoyenne reboisement ay euh, ñuy def ci ay comment dirais-je ay euh, investissement humain dem ci mbedd mi di ko bale muy lu nga xam ne dafay wone rek seen taxawaay ci wàllu société bi nga xam ne bu ñu leen dénkee ëllëg la nga xam ne daan nañ ko def te amuñu budget bu ñu amuy budget dinañ ko def te askan wi yëpp xam nga gis ci seen njëriñ loolu nag ko yàgg di def yaa ngi waajal élection moo tax amuñu lu ñuy tiit au niveau du département de Mbour te itam bi élection yi euh, bu processus bi commencé on a vu que dans beaucoup de commune euh, pratiquement dans toutes les communes ñu ngi doon organiser lu mel nii maanaam organiser ay journée de formation pour waajal ndaw yi outiller leen nga xam ne bu ñu élection bu campagne ñëwee rek bu ñu demee ci sur le terrain wax ak nit ñi dina leen mën a convaincre pour que ñu mën a am ndam au niveau du département de Mbour mais am ko aussi au niveau de tout le Sénégal. campagne bi dañ koy aborder ak sérénité euh, lu tax ñu koy aborder aborder ak sérénité parce que dañu am un candidat boo xam ne jàpp nañ ne il a le meilleur profil mais aussi ñu am benn programme boo xam ne dafay singulariser par rapport ak yeneen programme yi moo tax euh, boo gisee ñu dañu naan un programme humanisé. ak ay programme yoo xam ne c'est des programmes instrumentalisés le programme bi nga xam ne moom la Aliou ja Dia euh, proposé au Sénégalais mooy vision am gis nañ ne dafa jël net euh, nit def ko muy le point focal centralité c'est l'humain moo tax ñu tuddee ko nit ak naataange vision mu ne dafa bëgg Sénégal boo xam ne un Sénégal prosper boo xam ne ce sera bâti dans l'équité bâti euh, bâti dans l'équité la droiture la transparence Euh, l'unité mais aussi le respect de la dignité humaine te gis nañ ne loolu moo ñu manqué woon ci Sénégal ndax ñi fi nekkoon yëpp seen programme yëpp dañ koy tënk ci li nga xam ne mooy l'instrument fàtt nit bi nga xam ne moom moo war a doxal moo tax Aliou Mamadou Dia mu ñëw andi benn touche ci wàllu gis-gisanam ci wàllu réew mi mu ne damay jël nit d'abord liggéey ak moom nga xam ne dañuy delloo siwaat suñuy valeur nga xam ne buñ ci sukkandikoo rek lépp li nga xam ne teg nañ ko fi muy institution yi muy yeneen ak yeneen dinañu am nit ñu nga xam ne ñoo fay nekk ndax damay faral di wax rek le Sénégal amuñu problème institution mën naa wax loolu mais problème nit la ñu am moo tax koo fi dénk rek mu luubal moom la ñu gis ci régime bi nga xam ne moo fi jóge te dañu bëgg indi changement moo tax mu wax transparence mooy lépp lu nga xam ne dénk nañ la ko bu subaa booy rendre compte ñu xam ne na nañ ñu la joxee yaa ngi delloo euh, comment dirais amul lenn loo xam ne am yàqu-yàqu la mooy lu ñuy wax euh, ci wàllu euh, gestion Euh, le principe de redevabilité loolu nag gis nañ ne lu bees la ci wàllu politique moo tax ñun ñu mobiliser wu topp ci ginnaawam xam nañ ne li muy proposé mooy tax ba ëllëg ndaw yi nga xam ne ñi ngi jël gaal yi di dem ñu mën fi toog te ñu mën a tabax réew mi mu jëm kanam. Je m'appelle Sow euh, je suis euh, le responsable adjoint du mouvement de la jeunesse pure fédération de Thiès euh, nous sommes là réunis aujourd'hui dans le cadre d'un séminaire de formation pour capaciter la jeunesse des quatre euh, Euh, des quatre fédérations, des quatre départements. Euh, le département de Thiès, le département de Mbourg, euh, le département de Tivaouane et Djurbel. Je pense que comme vous l'avez vu, la salle est, est, pleinement remplie et on est là pour la capacité et on se dit pour la campagne, préparer sereinement la campagne et battre la campagne pour hisser notre président Ali Mourja à la tête de la magistrature suprême. Je vous rappelle que nous, on a un programme qui est centré sur l'humain. Donc, euh, un des frères l'a dit tout à l'heure, euh, le programme est centré sur l'humain. Pourquoi sur l'humain Parce que euh, vous pouvez avoir un programme instrumentalisé si vous ne préparez pas la jeunesse, si vous ne préparez pas la population, c'est eux qui vont retourner et détruire les infrastructures. Donc un programme exclusivement centré sur l'humain, je pense que c'est inédit pour le Sénégal. On vient de voir un parti politique qui s'investit dans un programme humanisé. C'est rare, c'est rare. Euh, on n'est pas trop ancien, mais quand même, de ce que l'on connaît sur l'histoire du pays, c'est très rare et c'est une exclusivité au président Ali Mouridien. Un programme très riche euh, qui s'articule sur l'humain, mais après avoir euh, parlé de l'humain, centré tout sur lui, il faut qu'on qu jette une fenêtre à la prospérité, parce que l'humain, ça ne suffit pas. Une fois qu'on construit la personne qu'il faut euh, pour amener le pays loin, alors il faut également qu'on jette les bases qu'il faut pour le développement tel que Euh, c'est pourquoi on intitule le programme euh, L'humain et la prospérité, donc communément célèbre en Wolof Nit ak Naataange. Donc on se dit prêt et c'est un programme vraiment extrêmement riche. Et je rappelle les propos du président Ali Moumouridia qui dit qu'il est prêt pour un débat programmatique parce qu'il sait de quoi il parle. Il a un programme très riche et vraiment qui, qui, qui, qui, qui fait euh, la fierté qu'on peut également utiliser pour développer le Sénégal, c'est sûr. Oui, parce que tout simplement, euh, la jeunesse, euh, c'est l'arme, c'est l'arme de construction. Aujourd'hui, Euh, ça fait beaucoup de mal qu'on voit euh, cette jeunesse qui entreprend les pirogues, aller à l'extérieur. Alors que je dis, je dis, je dis, de ce que l'on connaît, on peut tout construire ici au Sénégal. Et l'espoir est là avec la venue du président Ali Moumoudoudia. Parce que c'est la jeunesse qui fait la fierté d'une nation. Aujourd'hui, toutes les grandes nations qui sont arrivées à un niveau de développement, mais qui les a construites, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse. Donc il nous faut euh, capaciter la jeunesse. Et comme il dit, la jeunesse sera au cœur du développement. Donc il n'y a pas à les accompagner, mais ceux qui vont initier, je pense que parmi les quatre réformes, euh, il a parlé d'un conseil euh, supérieur de la jeunesse, donc qui est, une, euh, euh, très important dans le programme, qui est un pilier vraiment fondamental. Et voilà, donc la jeunesse est là pour construire le pays. C'est juste à la jeunesse que l'on compte pour euh, le développement du pays. Et sans la jeunesse, ce n'est pas possible. Donc faut pourquoi c'est une initiative du PUR qui est là, a une jeunesse et qui permet vraiment de, de concurrencer tous les autres partis parce que euh, vous avez vu euh, cette, cette, cette, cette, belle rencontre-là, c'est pas facile. Si on évitait à d'autres formations politiques de le faire, ça serait très très compliqué parce que regrouper quatre départements avec le contexte, vraiment c'est pas facile. Donc euh, ça c'est une orientation qui est, qui est, qui est depuis là pour, la, pour le pur.